mbokki jullit yi mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di bu baax di leen siyaare bu baax di am mbégte bu baax a baax di ñëpp mbégte bi ndax bis bii li sababu bis bi mooy dañuy ñaanal way dawlu yi te ku yàlla bind rek maanaa am nga ko dawlu yàlla dogal nag ak dayra ñoo ko taxawal mooy yi ngeen sal ma sol ko ak ñeneen waaye ci kaw loolu maam Issa Mbacke mi toog maanaa la ci bokk bokk ci ahlu sunna ndax keroog bi ko taxawal dañ ko woote ci kër sëñ Touba gi te soxna si yëgutoon ni ñoo ngi waaye danoo taxaw ci buntu moom rek soxna si gaare day bu taxawal fii ci kër bi mu ne jënd leen ma waaw loolu yëw na kon léegi loolu waaye boobu ba léegi nag soxna si bokk ci daayira bi dañu li waaye dañu ñeme lool daayira bi ñaari daayira la Ndakaaru ak Touba ñoo ko ñoo ko ñoo ko section lawen trois bi jal lawan Dakar Colobane ci kër sëñ gi ñu àndandoo fii maa ngi maam Diarra ñu dem dakaar ñu amal bis ba comme nii ci ndigalul maam Ismaïla Mbacké mi toog xam ngeen ne kon tey waa Dakar ñoom fi leen yandu léegi leen yewee ko muy dayre boo xam ni dañoo lëkkatu ci benn groupe benn groupe boo xam ni euh, ak la boo xam dañuy teg yàlla dogal nag ñu ànd ko soxna sii maam Isa mu dooleel na lool maam Isa moom da xam ne lépp loo xam ne rek dañuy liggéeyal Sëñ Tuubaa boo ko woowee jekk naa la kon nag bis bi tey sabab bi mooy euh, dañuy ñaanal way daw li waaye suñu xol daa sedd ndax bis bi booy xool da naan bis bi ñu ko taxawal mbooloo la fi ne te bis booy seet waa dayre bi lépp boo ko wàññee ma bi mënut fukki nit te gis nga ni yéeme waaye dëgg bi mu mënut ay caxaan dëgg fi ne loo taxawal te muy dëgg yàgg yàgg danaan col colet waaye loolu dëgg it loo ko ñot loo ko ñoddi ñoddi yàgg-yàgg danaan ta sax ah loolu moom wér la pas pas daa am solo euh, mag ñi àndoon ak sëñ Touba leen raw ñëpp mooy seen pas-pas ya dafa kayoon lool moo tax koo ci gis ba léegi mbiram ñu ngi koy waxtaanee ci sëñ Touba kon nag murid bu nekk na jël pas-pasam yóbbu ko ca kaw junni nit bu ndajewoon te pas-pas amutul du dem. waaye ñaari nit lu taxawal te pas pas eh, lal ko kanam la jëm mooy day bi nag dañuy siyaara baax soxna loolu li nga xam ni mooy ci la bokk wax dëgg yàlla di ko jàmbare waaye Seydina Omar nga xam ni moo moo ñëw déguisement yi bokk ci dayre bi baax ñu ngi koy seeraat bu baax di seere suñu xaadim sob ak mboolem dayre bi yëpp jànkati xasaay bi moom du ma leen sant ndaxte ñoom maa ngi yéen a bokk ñoo bokk liggéey bi sëñ Barma rek moom naa yàlla sëñ Bamba mii moo tax ma xam maam Issa Mbacke ahlu Kawe maam Bamba boo nu bëggee xam nañ deme mooy soow ak suukar la Bamba ak Modou Fall xasaay mooy soow ak suukar te du set suñ gisantewul dina déggante fi ñu amee ñaari fan yu ñu gisantewul rek dañuy manqué te waaw waaw <laughs> ah, loolu mooy nekk léeg lu ma nekk da lu ma nekk sax Touba waaye dama koy nam lu doonte ñaari fan sax daa koy nam ngir ànd gi de dëgg te Abdoulaye Seye Gueye ba nag ni si ñu ànd nag moom ndax ñoo bokkal di aw Abdoulaye Seye Gueye loolu seen ci noonu nag Abdoulaye moo ko def ci noonu moo la topp ci lépp ba gërëm na man moom Abdoulaye Seye Gueye damaa woo ne ma gërëm naa la te Daaru Salaam mbëg ci barga nañ jàng ba xëy ma awa ko ba nga xam ne dina xëyee mu mën maa si gi ndax ndax laajte gi jox ma ab junni ndax may lëng ba fee daal ne ma xam naa ne sonn nga de waaye bu fekkee am naa dara ci Cheikh Abdou ah, am barkeb xasaayid loolu moom ah, wax naa ko ca dara sonal mbokki baa nga <laughs> ah, dama ko damaa sonn ci ginnaaw nag sëñ Bamba mi xam na li may wax kon nag kàddu yi soxna maam Issa maanaam mooy sant rek maam Diarra Gueye ñi nag ma wax tuuti ci moom ndaxte alxuraan wax ne ma sayid na illa bi ma alima nit ki buy seere na seere lim xam maam jaara ku jafe la ci soxna yi boo xam ne boo ko doon da nga dox lu bari doog a su mel ni moom ndaxte da nga gis ñu bari ñoo xam ne dinañ bëgg lu baax waaye dañuy tricher <laughs> soxna jaara moom du tricher fi ne ni mel nii noonu la mel ci biir biti lépp barke sëñ Tuubaa xasaa yi nit mel ci kaw nga koy gis bii rek bitam lépp noonu la mel amul échec man dañ ko fàggu xam nga loo xam na loo xam ne du njàmbaar ndimbal la waaye maam jaare ko dimbali la ku koy dañ koy ñaanal mu gudd farta àgg waaye noo ci yomb yàlla yàlla taxawoo ko ba daaram ji xam ne maam ba Mbacke ñii moo ko fi teg yàlla barkeel ko ba mu kawe kon képp ku teew ci bis bi yàlla yàlla faj say aajo ci barke borom Tuubaa <laughs> soo ko seet la guy macha allah bés bi bésu way dawlu la waaye daa am leneen lu duggaat ci biir loo xam ne nun ñëpp dañoo ëmbaaliwaat ci biir yàlla nañ ko fekkee déwén yu bari ci barke Seexul Xadim soxna maam Isa noo ngi lay sant bu baax gedde gépp ngi lay gërëm daara jii nga xamante nii ñii ngeen seen ñii soxna yi ngeen seen ñëpp seeni doom a nekk nii seen ginnaaw soxna yi ngeen seen ñëpp gëne lañ dëkk ñëpp jéggi tëli lañ dëkk ne ñëpp seen i doom a nekk ci daara ji soxna maam Issa moom la sëñ Muntaxa jox ndigal ni ko ginnaaw daaray Poroxaan fees na foo mën a samp daaray maam jaara na ko fa samp mu ñëw samp koog biir Gédé ñu tudd ko soxna Aminta bu sa waajur sëñ Abdou Khadir titre bi moom lañ ci bindoon fii dañ ko ay mbind moo xawoon a jafe waaye fële ci daara ju jëkk ja loola lañ fi bind daaree alxuraan ju poroxaan ñu tudd ko soxna Aminta Bousso mu nekk biir Gédé soxna si moo ko fa samp loxoom mu si jee jóg ànd ak jàmbaar ji Cheikh Abdou Lahad Dieye nga xam ni Cheikh Abdou Lahad Dieye toll na jamono joo xamante ni fukki fan ak juróom yu ne mu ñëw mu ñëw ci kër gi ñëw ñëw seet si daara ji ba yàgg moom di ko def parweer ndax lépp ak jote dem ndax xam nañ ne dem ak soxna si pastéefam ak dëggoom moom Cheikh Abdou Lahad Dieye tax na daara ji mën na ni fu mu yegg moo ko faggale ndax toujours mu ngi soññee Abdou Kanaga ne sama seere la sonnoon na ci daara ji lool soxna Fatou Cissé mi nga xam ne moo jiite day daayira soxna jaara bii tey ku sonnoon ci daara ji la man na damaa toppoon ci seen ginnaaw di yambar yambari rek wax képp laaj ci féete woon waaye ñooñu daj nañ ci daara ji loo xamante ni kenn mësula ko wax jàngalekat bu ne jaar na fi waaye jàngalekat bu ñëw daara ji dina métti métti woo xamante nii ak tar xamante nii li ñu lay fay sax dootoo ko bëgg ndax daara ji metti waaye liggéeyub sëñ tubaa moo dul yàqu mukk te soxna maam Isa yàlla na sëñ tubaa doole dimbali li nga samp mu taxaw te yàlla rek tax nga samp ko mu taxaw muy daara alxuraan yi ni mu taxawee yàlla na sëñ tubaa taxawoo noonu ci sa barke maam yàlla na yàlla sunu borom taxawale noonu yi gedde gépp sant gedde gépp sant nañ la daara gi di dem ba yàgg lépp di rëng-rëngi soxna Fatou Cissé ni ma am na koo xam ne doom la ci man ñu koy wax soxna Jaara Géey kër ma la dëkk ku mën a jàngale la yaakaar naa buñ ko indee ci daara ji daara ji dana dox kere ba soxna Jaara duggee ci daara ji ànd ak sayer kebi mii ba fii ma toog di wax ak yéen Abdou Kana nga ne ci mbooloo mi la bokk soxna Fatou Cissé ay yittee ko dapp mu dem kër ma waaye bu fi teewoon sama kàddu gi lay wax kere ba soxna jaara duggee ci daara ji yor ko ak tey man lijjanteetuma ko Abdou Kane lijjanteetu ko coow bëreetu fi te saa buñ fun mu santoon rek kalaame yaa ngi ñëw parents de élèves yi ñëw di kenn ku ne di kalaame def nañ sama doom nangam sama doom nee nangam sama doom nee na nangam waaye soxna jaara jikko soxna jaara la yor li ci sëñ Modou Fall mi wax barke Cheikhul Khadim du Tirisé daara ji ni mu toll nii. man nga fee génne lu mat téeméer mbaa lu ko jege ñoo xam ne kenn fayut dama ko ko waxee def ma ne rus naa génne doomi jàmbur ci njàngum alxuraan ñu ni ko ko doon jàngal mu ni soxna jaara loolu dama leen ko seereel bés bi bés bi waaye daw lii la waaye daa am lu làqu ci biir loo xam ne dama leen ko seereel ba yéen ñi ngeen xam ne maam jaaram mi ngeen àndal asgor pire la ab julit pire la ab murit àqan la itam barke Seexul Xadim murit saadix la lu leen ko seereel nag di sant ñëpp nag daara ji bu tasul ba nëgëni rek yàlla jëmmi ma ak jëmmi seer yi daara ji dinaa am ñaari weer ñaari weer wala ñetti weer yoo xamante sama tànk du ma ko dugal ci biir daara ji te toll na jamono yoo xamante ni fu ma toll maa ngi ci biir daara ji wala bu ma fi ñëwul ci ngoon gi bu subaa ma wala bu ma fi ñëwul tey bu ginnaaw subaa ma ñëw fi waaye keroog moom daara ji soxna jaara dugg ji ñuy dox ba daara ji yokku mu àbb kër gii dugg fi mook dongo yi boobaak léegi dinaa toog lu mat ñaari weer yàlla du ma boo ko wul téléphone du xam la xew ci daara ji sëñ Abdoulaye Dieye ngi ni Cheikh Abdoulaye mi ba mu fi gëjee léegi kenn xamul kañ la kenn mus ko ni ko daara gëjee daara gëjee nangam bañ ko ko wax yàgg na lool te toll na fu jamono yoo xam ne fuñ toll ñu di ko woo téléphone waaye nag gëm nañ ne ñaan soxna maam Issa Mbacke ma ngi ci waaye yàlla suñu borom ak Cheikhul Khadim moo dul gàcceel waaye mukk te nun gëm nañ soxna maam Issa waaye sëñ Tuubaa la gëm nañ ni doomi sëñ Tuubaa nga gëm nañ ni dereti sëñ Tuubaa nga yàlla na la fi sëñ Tuubaa yàggal sa bëgg ci seexul Khadim yaa ko xam yàlla na la ko defal yàlla na la suñu borom bàyyi ci suñu kanam te bàyyi laax sam xel ci barke seexul Khadim foo mën a jëm ak lu mën a xew noo ñaan rek mu dem ba ca cëppantal la bu kenn de ay ndeysaan ci barke Sëriñ Tuubaa Seexul Xadim mën na ko yàlla na la ko defal te boole nu ko li nga bëgg ci liggéey Seexul Xadim ak fi sa xol nekk yàlla na la Sëriñ Tuubaa Mbàkke may kattan ak wér ak fekkee tal ci barke Seexul Xadim ba nga def ko ni ko bëggee soxna jaara nag nee na xolam sedd na bu baax sant na ñëpp gërëm na ñëpp mu ngi ni toog euh, kere bi mu sant daara ji góor yàlla mbay mii la àndaloon waa kay saa waay jilaan na keroog dama dama ko gisul woon góor yàlla mbay mii moo dox sax diggante bi ba soxna si ñëw samp si daara ji waaw mujj gaa yi yëpp wàll si barke Sëñ Tuubaa moom mii moo dox suñu soxna si góor yàlla mbay mii moo dox suñu digg soxna si ba mokk ba soxna si ni ko dinaa dem sampal leen daara waaw dama laa gisul woon waaye man du ma sakk jëf waaw du ma sakk jëf bu ma ko fàtte woon bu ma génnee dal ma waaye ñoo ngi lay sant bu baax nag di fàttaliku lu yàgg noo ngi sant ñëpp nag soxna jaara yàlla na suñ Tuubaa féete fépp suñu xol seet nag yow bu baax suñu xol seet nag yow bu baax barke suñ Tuubaa mu ngi siyaare bàjjanam bi mu fekk di soxna maam sa Mbàkke sopp ko lool te gise bi bëriwut mu ni ñoom ñu sopp ko lool te gise bi bëriwut ngir liggéey gi muy liggéeyal maamam ngir liggéey gi muy liggéeyal maamam di ko ñaanal fan wu gudd lool te ànd ak ak wér sëñ gaawaan ndax kenn ku ne xam nga diggante kër sëñ Masamba ak sëñ ak sëñ gaawaan kon suñu kilifa la kon moom seen kilifa la soxna si nee na mu ngi lay siyaare bu baax ginnaaw nee na ginnaaw loolu siyaare mbokki taalibe yëpp mu ngi siyaare mbokki taalibe yi mu fi fekk yëpp nuyoo ci sunu kàddu kilifa. di nuyoo ci kaddu kilifaam. di Serigne Sidi Mbacke moom sëñ Amidoune. di Serigne ci kàddu Serigne Sidi Mbacke moom sëñ Amidoune. di seereel soxna si toog di soxna maam so di seereel soxna maam Isa ñu ngi lay seereel ci maam Diarra mii. di ko seereel ci taalibe fi nekk. di ko seereel ci taalibe yi fi nekk. jikko yam nekk Daaru Salaam. jikko yi soxna maam Jaara nekk Daaru Salaam. jikkoy taalibe rek la. na jikkoy taalibe rek la. ak jikkoy turandoom soxna Jaara Bousso. ak jikkoy turandoom soxna Jaara Bousso. ma ànd ak sama kilifa gii di soxna Faati Mbacke. nee na mu ànd ak kilifaam gii di soxna Faati Mbacke. ak soxna Anta Diop ak soxna Anta Diop. di waa kër sëñ Sidi. di waa kër sëñ Sidi. ànd ak soxna wax sëñ Seexuna Mbacke. ànd ak sëñ Seexuna Mbacke. ñëw ci turu sëñ Sidi waajuram. ñoom ñu ñëw ci turu waajuram. sëñ Sidi Mbacke. jiite délégation bi sëriñ Sidi Mbacke. sëriñ Sidi Mbacke jiite délégation bi. sëriñ Cheikhouna Mbacke. sëriñ Cheikhouna Mbacke jiite délégation bi. ak soxna Mbacke Diagne. ak soxna Mbacke Diagne. ànd ak soxna Fatma Diop. ànd ak soxna Fatma Diop. ànd ak ak soxna Khourédia Ndaw. ak mbokk yi ñu àndal ñëpp. ak mbokk yi taalibe yi ñu àndal yëpp. nga xam na mu ngi xam ne ni maam Diarra mii. ginnaaw buñ santee seen waajur yu toog di soxna maam Isa. santee seen waajur yu toog di soxna maam Isa. sëriñ bi nee sant na maam Jaara a baax. sëriñ bi nee sant na maam Jaara Gueye bu baax. gërëm na ko bu baax. gërëm na ko bu baax itam. ndax su dikkee Daaru Salaam. ndax ndigalul soxna Astou Diagne ci lay ñëwee. di doom ci kër ga moom mii. di doom ci kër ga moom mii soxna Jaara. waaye ak taalu bi rek la fay doxal. sëñ bi daal na ko gërëm na ko. sëñ ngi koy ñaanal yàlla fu mu bëgg a egg mu egg fa. nee na mu ngi di yàlla sunu borom fu mu bëgg yegg mu yegg fa. ak képp kum ko bokkal. ci barkeb Sëriñ Gaawaan. Gaawaan. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu la ilaha illallah رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala barke xaadimu rasul bokki julli di fi daje bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ñaanal cheikh mahamadul muntaxa ibnu cheikh mahamadul bachir yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te may ko wér defal ko njabootu Serigne Touba gépp bu loolu weesoo tam ñuy jël nuyoo soxna maam isa Mbakke bintu Serigne Modou Fati Xari ibnu Seex ma Zamba ñu gën koo xam ci soxna maam Issa Mbakke ahlu kafe ak rakkam ñi mu dendal soxna maam Jaara Mbakke. nuyoo bi nag ñu ngi koy teg ci loxo bokkam yu tedd yi bàyyi ko Salaam ndax ku ne xam na ne Cheikh Mazamba ak maam Cheikh Anta jenn jëmmu lañ du ñaar ndax ñoo bokk liñ bokk ci sëriñ Touba rafetal ko lool soo demee Darou Salaam danga fa fekk ñoo xam ne. ñoo sëriñ moo du Khary ñoo bokk jenn ndey loola nag tabe ak baax ak dundal ak bokk moo ko sos kon soxna si bàyyi ko Salaam di doomi Serigne Am soxna Ami ak ñi sëñ si di yebal ñëpp ñu ngi leen di jox niyoo soxna si di ànd ak li mu war a àndal lépp nag ci teraanga. di ñaan yàlla mu yàggal leen fi te may leen wér di nuyu itam jëmm ju baax ji sëriñ Modou Fall sëñ Bamba wax na ko léegi baax moom baax rek la mën a doon eh, liñ waxtam ne lu ñuy defal sëriñ mu tàbbal ci loxoom wér na te man am naa ci ay preuve bërki démb rek bi sasee soxna si xel kom daaray daaru tanzil damaa dem ba wëlbatiku dajeeg moom ci tataa bi mu ne ma foo jóge ma ne ko xel ko maag soxna see ànd mu ne ma loolu de ginnaaw yëguma yëguma ko woon ba demuma comme gis naa la mel na ni gis naa soxna si kon sama addiya ngi nii barki sëñ Tuubaa <laughs> booy seede nag li ngay seede day am cës soxna jaara yow boo toogee rek ma tàmbali kon soxna Diarra sëñ xaadim docteur nag sëñ xaadim docteur xanaa ñu bari xam nañ ko jotaay bi daa bokk ci samay référence ci yoonu murit loolu nag ku ne sañ na ko bu kenn wax ne nag daa sant Mbàkke waree du du def moroom référence laa wax référence mooy koy roy mu am nag lu ma jàngaloon benn bis boo xam ne dañoo séqoon waxtaan dama am benn bis may def ak moom waxtaan woo xam ne ñun ñaar rekk ku séqoon ci rajo ah sama sëriñ ñëw na sëñ xaadim xasida sëñ sidi jotaay ba mu daa murite rek Mbacke Balla occasion yi buñ ko amee buñ ko buñ ko para paraxee xam nga lu tax ma ne sëñ Sidi Mokhtar Xuma bu ñu amee occasion buñ ko parax paraxee da ngay gis kuy yebbi yebbi ñu taal lamp yi ba 3 heures de matin kenn du yàkkamti te saytaanee woote maam Diarra mi nag xam ngeen lu mu woote. ñaanal way dawlu yi ku amul mbokk mu faatu wut fii sëñ Abdou Lahad nee na kenn xamut sama mi maam sëñ Abdou Lahad ko wax dana ñun ñii toog kenn ku xam sama mi maam amu fi lu ñu xañ xamuñ suñ maami maam dee dee rek moo ñu xañ ñu ñàkk xam suñ maami maam te sëñ Abdou Lahad nee na ku juddu dib liir ku dee ne ku juddu di liir ku dee ne ci yàlla bakkan bu mos dund dana mos dee kullu nafsin saayixatil mawt alxuraan a ko wax kon lii soxna jaara woote du woote bu gone waaye bala may ñëw ci loolu daal lu ma bëggoon a wax dama ne sëñ xaadim docteur dane ma soo demee ci ndajum borom Touba di waxtaane borom Touba ña borom Touba may seen maam cër la nga xam ci seen maam wax ca bu doon benn baat soga ba loolu si nga xam ne ko wax ñi fi teew bàyyi ko lenn rek laay wax ci ñoom ana kan mooy doomi sëñ Amidun soxna si tey laa ko mas a gis nag sëñ Amidun sëñ Mor Talla Fall moo ma yónni ci moom fekk dañ doon ñaanal waajuram wu jigéen su ma jiimul waajuram wu jigéen ca kër moo ca kër Maam Mor Jaara la bokk kenn du ko weddi ma dem ñëw ci sëñ jiili doomam ne ko Mor Talla dane ma sëñ Amidoune baax na baax goo xam ne du ma ko xeebal dara bis bi de waxuma ko waaye yëg naa ko te lu baax lañ fay wax demal jëli ko boo ñëwee teg ko ci rajo bi ma jël ko ba mu jeex ma tàggu sëñ jiili mu ne ma loolu du mën a ne tiraanga bii Mor Talla def dañuy ànd dem ci sëñ am ma ñëw fekk sëñ bi soonu yoroon na genn xasida waaye jàppatuma xasida gan la te bëggumaa waxal ni du yàlla loola sëñ ji li ne ko kii dey Mor Talla Fall ko yebal ci bis si soxna si mu ne ko Mor di xër na lool waaye bis bi sax yëglewuma ko moo tax nangu moon rajo yi ñëw fi mu ne ma yow la yebal ma ne ko man la yebal mu ne ma loo bëgg ma ne ko ngërëmal sëñ Tuubaa di bëgg naa ko bëgg naa itam xaalis li tax ma li ci xaalis nag mooy maam Cheikh Anta dañ ne borom ngërëm ak dërëm ngërëm na ci sëñ Tuubaa ko jëlee dërëm tam sëñ bee ko jox bu dërëm baaxutoon sëñ bi da ko jox kon bëgg naa alal bëgg naa xaalis sëñ Amidou ne ma da am ñaar yëpp daal di yëkkatiku fi mu soonu daal ne sëñ jiili li li li na ci suuf ngegeenaay li jox ko ko ma ne ko mbàkkee damay bañ a yóbbu lii mu doon ci man loo xam ne du ma jig mu ne ma dafa lewet doom ci yow ndax maa la ko jox si laa jooma ko kere sax mag ña woon am na ci ñoo xam ne xool nañ ma bëtu waa ji yóbbu na li sëñ bi dajale woon tey lépp ndax sëñ bi li woon ci ron nga gënaay lépp la ma jox barki sëriñ Tuuba te ba ma génnee ba wàññi ko xaalis bu jeex la bo baree baree bare boo xam ne ba ma nekkee ci rajo kere laa mas a am lu toll noonu ci xaalis sëñ Amidun moom ma ko jox xam nga ko ma ko joxaat nag ci yoonu murit kenn ma ko joxaat ci yoonu murit muy sëñ Maxtaar Bousso mu Gédé moom moo ma joxaat lu toll ni lii ma sëñ Amidou ma sa jox sëñ Amaxtaar moo ma ko jox sëñ Maxtaar damaa ñëw ànd ak ñett ñu nekk ci rajo yi ñu jël korité ba korité gi jeex ñu dem jëli tabaski bañ jëlee tabaski man dong ma dem ñi ci des ñëwuñ ndax koré ga sëñ bi dañoo yeewuut ma ñëw sëñ Seex Bousso Assane ne ko sëñ Seex Bousso Assane waa mi di jiite. doomu soxna si soxna Rama gis naa ko fi léegi mooy moo magam ma sëñ Fall loo ko yor mi mi magam kon li may wax lu leer la kum neex nga laaj ko ko sëñ bi ne ma ana ñi nga àndaloon gi ma ne ko xam naa lu tax ñëwuñ ma ne ko lu tax ñëwuñ mu ne a yeewi ko ah de mu ne ma yow rek yaa dir si ma ne ko ah mu ne ma dama leen a wutoon ci korite gi moo ñëx ñëwuñ ci tabaski gi waaye yow toogal fii xaar ma ma toog di ko xaar buso buso yi di ko siyaar di ko siyaar di ko siyaar ba pos yi poos yi funki mu ne sëñ Seex Buso Asan waxal poos yi joxal ma ko maa ko jox ngir sëñ Mbàkke Buso maanaam ñaa keral xaalis yooyu ñaari xaalis yooyu ma am ci njabootu sëñ Tuubaa kera laa ma sa am som yu toll noonu kere bi ma ñëwee mortale na ne ma sawaay ni ngay monté jullit gede gi yéeme na de sawar nga lool ma ne ko ah am na lu xew de moom waaye duma la ko wax feek pare wuñ ba ne ci ay fan kere moo ko waxee ne ma sawaay man ngaa gore nag jox ma sama wàll ma ne ko demewoon ñaari action yooyu laa na nett nettali muy seede sëñ Maxtaar maa sëñ Maxtaar mii sëñ Sidi Maxtaar ko ma mii juróomi at lañ déggante ci rajo musuma koo gis ba benn bis ma invité ko ci lañ gisee waaye koo gis xam ne murit la man damaa bëgg murit suy nelaw ñu xam ne murit ay nelaw man moom loolu moom laa bëgg man waaw murit buy nelaw ñu xam ne murit ay nelaw bay mbay li nga doon wax ci soxna jaar dama ci bëgg a wax lu leer loo xam ne mbir la tey bi ma xëyee sama kër sama benn xarit laa jaar pour jëm si fii ma ñëw ba hôpitalu njaay ci croisement bi ma arrêté oto yooyu ñuy wax moos yi fekk génn góor mu toog ci kanam oto bi kenn newu fa weex sol lu weex tal di mag ma ñëw toog ci wetam mu ne ma ndax xam nga lu tax ma nga toog ci sama wet barke xaadimu rasulillahi barke alquranul karim ak baat baat bi mu ne ma ndax xam nga lu tax nga toog sama wet ma ne ko déedéet mu ne ma yow am nga cër ci sëñ Tuubaa ma ne ko yow boo ko waxee du ma ko weddi waaye man jàpp naa ne amaguma ci sëñ bi dara mu ne ma man Moodu Fall maam jaara la tudd baraba maam jaara maa fa njëkk dem ginnaaw ba ko sëriñ bi defarloo wax ma góor gi ko sëriñ bi defarloo xam nga ko man maa ngi ko soo gis tey tey laa ko soo gis mu ne ma wax ma dara ci maam jaara barke borom Touba mu ne ma wax ma dara ci maam jaara waxuma ne ko nag bisu maam jaara laa jëm waaye dama ne ko man day mas na maa ànd ak soxna maam Isa Mbakke ak ku ñuy wax seeni jang ak beneen soxna ñu jóge Murtani ñëw di siyaar sëñ Muntaxa fekkuñ ko tuubaa ñu fekk ko mbul fekk sëñ bi toog soonu ñu nuyu ko ba pare di waxtaan di waxtaan ba waxtaan bi bëgg a jeex ma ne sëñ taxaa soxna sii de jàmbaar la ci maam jaara dama bëgg nga ñaanal ko. ma ay wax ak góor gi de sëñ mun ne ma xanaa xamu ne maam jaara su ëllëgee yow mal xiyam ñi koy liggéeyal la sëñ Tuubaa di njëkk fay soxna saa ngi toog bi ko sëñ Muntaxa di wax xam nga moo ko mën ay waxi bàyyi diw soxna saa ngi toog ma toog sii nii sëñ Muntaxa ne su ëllëgee yow mal xiyam ñii liggéeyal maam jaara la sëñ Tuubaa di njëkk a fay ma ne maam jaar ma ne ma ne sëñ Muntaxa lu tax lu tax ma ne ko lu tax Mbàkke sëñ Muntaxa ne ma xam nga lu tax ma ne ko déedéet mu ne ma nit yi nee ni jëmut fenn dañoo bëgg seen ndey ak seen baay koo teral ndeyam mu teral la koo teral baayam mu teral la koo toroxal way juram mu toroxal la ca saasa kon nag soxna jaara soo liggéey yow mal xiyam ñii liggéey sëñ Tuubaa lañ njëkk jox seen cër bi ma waxee loolu ñaaw la njortu daaw doo jalli dooram mbaaj maam jaaratulaay siiso añaano te daawo boddi dooga defar teggin yaanu ko wan mam jaaratulaay yaaraw sawaskan ba rawaale ku weex ëpp nee na ku ma laal baax ku laal ku ma laal baax dama laal bamba léegi nag dafa am lu ma doon wax góor gi bi ma waxee loolu góor gi ne der ak yox ci oto bi daanu waa oto bépp yi kër kër yi nag ma ne ah man de su ma xamoon ne su ma waxee lii góor gi daanu ci oto bi dama ko wax loolu tay la bi may ñëw ci bi maam jaara bii soxna jaara nag Baye Mbaye wax na dëgg ndax booy seere da ngay xam daara ji ni ko waxee ni la demee soxna si ngoonu tàkkusaan lañ ànd ci sëñ Muntaxa mi ngi taw ay taw yu ndaw mu ne sëñ mun Muntaxa daayira yi dañ may yónnee ay maam jaar rek te saa wu ma ñëwee benn rek la ñuy a jël bu ñu dee jël par benn kañ daayira yi daj sëñ mun taxaa woo kenn ci ay woy bindam mu ñëw mu ne ko indi big ak këyit mu indi bay big ak këyit mu sant soxna si daara yii ñu koy taxawal loolu histoire bu yaatu la ba si fii ci Guédé taxawal daara ji ci jàpp na la sëñ góor yàlla niñ ko waxee ñoom soxna Fat Cissé ak baay Mbay Thiaw mii ak sëñ Abdou Kan mais ñu taxawal daara ji ustaas yu bari jaar nañ fi waaye ni mu ko waxee daanaa fi ñëw ay yoon yoo xam ne sax soxna si du ko yëg ngir di lijjanti ay mbir bañ lijjanti ko ba mu sedd maag Baye Mbay mii comme ni mu ko waxee daanaa fi yendu daana fi fanaan ngir lijjanti mbir ba maam jaara jotee ci daara ji ba léegi saa wu ma fi ñëwee dafa fekk ne lu mel nii rek moo fi am li bàyyi mbay wax muy koo xam ne nag wallaahi bu soxna yëpp royan ci moom liñ bëgg am te lii wane loolu mooy bis yi ma woote nit ñi toog nii kenn demul ay kilifa képp na fi sëñ Xaadim Mbàkke ngi waa Daaru ngi soxna saa ngi ay jàngkati xasida ay boroomi xam-xam rek a fi nekk kenn wut loolu lim nekk dëgg ci moom rek moo tax ma mën ko waaye mënoon naa woote bisub lu ne waaye dane bisub way dawlu yi loolu di lu man mi de sama maama nga ci ñaani am na ca sama baay faatu na sama yaay faatu na am nañ ca am na ay rakk yu faatu ami mbokk yu faatu yéen ñëpp am ngeen ko am nañ ca te Sëriñ Tuubaa dane ci silkul jawaahiri nit ñeenti dund lay dund ñeenti dund Sëriñ Tuubaa ko wax dund gu njëkk gi mooy dund gi muy dund ci biiru ndeyam kenn mënu cee nettali dara dunduk ñaareel gi mooy dunduk addina gi nuy dund day geex nag dund ga ko ñetteel mooy barsàq soxna kenn demagul aljanna kenn demagul sawara sëñ tubaa ko wax na kenn demagul aljanna sëñ tubaa na kenn demagul sawara ñépp a nga barsàq moo tax mu ne xasaa innu rabbi futti at li wa sahsahar lii xayril aza duniya wa uxra wa barsàq kon barsàq gaa yaa nga fa barsàq na ña fa ne sëñ nee na dañoo soxla dund ni ko waa àddina soxla sëñ Touba nee na ku am ku lay jox dépense saa woo laaj ko dépense su la joxul dépense nga lijjanti ji waaye doo diñe doo fande feeg yaa ngi koy man ña nekk barsàq na ñëpp maase xam ne sëñ Touba nee na suñ defut ni maam jaare mii ñaanal leen dañuy dañuy fande duñ añ duñ reer te fukki lixlaas ak benn su ko mbooloo jàngee yéene ko waa barsàq ku ne am ca loo mën a dundee ren ba déwén moo tax sëñ Tuubaa wax ca ma Masaalik ne isid du'a u yan fa u maytan fil qubur wa yan fahul hayya wa yujibul ujur ñaan day jariñ ñi faatu ba nekk ci bàmmeel yi di jëriñ ñiy dund di waral ay yool dellu teg ca ne ña dund ba nekk ca biir ba ña dee ba nekk ci biir bàmmeel suñ ne leen woon pëkk pëkk ne leen jóg leen dellu àddina wax li ngeen bëgg dañuy wax ne dañoo bëgg a dellu àddina dundaat donte benn saala danañ ca jëf-jëf ju rëy joo xam ne suñu dellu see fii ci bàmmeel mu jariñ loolu sëriñ bee ko wax nee na tam jëma saalik ñaari nit yàlla seeni mbokki nit yàlla laaj nañ leen bi ngeen duggee ci bàmmeel anu lu ngeen dese ci lu baax ci li ngeen doon def ñu ne ko julli jeex na woor jeex na asaka jeex na aj màkka jeex na tudd yàlla jeex na lépp lekk nañ ko ba mu jeex sëñ tubaa nee na ñu ne leen kon ndax dese ngeen dara ñu ne dese nañ daal suñ tëddaan ba guddi ñu jóg julli ñaari ràkka te yàlla tax yoolu ñaari ràkka yooyee day dese nañ ca tuuti lu ñuy mos waaye bu jeexee rek bu ñu yónneewut ñaan dootu sotti kon ku am baay bu faatu wala nga am yaay ju faat wala nga am doom ju faatu na la neexe añ sa ceebu jën na mu la neexe reer sa ndawal na mu la neexe naan sa boisson te yónneewoo sa ndey ak sa baay fukki lixlaas ak benn wala fukk ak ñaar na nga xam ne sa ndey ak sa baay ñu ngay dëñe ca biir bàmmeel loolu waxi sañ Tuubaa la kon léegi kon soxna Jaara uh-huh. soo ñëwee taxawal bis bu ñuy ñaanale way dawlu yi ànd ko ak gon yii nga xam ne gone yii xool soxna Jaara li gën a yéeme ci liggéey mooy fii koo fi woo xasida turu xasida lay wuyoo mu xaddamaat am na fi gis bu am na fi mu waay bu am na fi sindi di am na fi tur woowoo ci xasida yi am na fii ci gane yi kon kon mooy wane ne xam nga li tax li muy def gën maa neex mooy li muy def da dëkkoo da koo dugalaat ci biir sëñ Tuubaa te nag lu baax lu ne man nga koo def waaye loo jaar ci sëñ Tuubaa yàlla nangu ko boo sëñ bi nag bu neexee yàlla mu nangu bu neexee mu bañ waaye loo jaar ci sëriñ Tuubaa yàlla nangu te li nu def fii tey ci Serigne Touba rek lañ ko jaar ndigal tam lañ ci am mooy ndigalal kilifa yi ba ci soxna si teew ak waa Darou Salaam yi ndax ñii su fekkoon li maam jaare di woote du na duñ fi ñëw kon nag soxna jaar waaw góor moom buñ la ko waxee mooy dañoo bëgg nga gën a dox yaa ngi dox nag waaye na gën a dox te bul geesu te xam ne soxna jaara ñu ngi ko tuddee ñëpp su soxna jaara yeew woon ñëw fekk leen ñuy def ni ngay def day yokk maqaamam ak ndamam ndax moom lam am kenn amu ko jaaraaku doomam a am ndam ñoo amit jërëjëf moo jiitu soxna yi doomu jiitu kuy tubayu kuy soxna jaaraa la gën mboolem ku sol tuba it bàmba gën fopp wax ji wér gi dem na dayoo ba àgg ci soxna jaara bégal saw ngaañ roon na azal yaa jur ko jëm ci boromam woote ñëpp wuyu kon ñun ñëpp ci woote soxna jaara lañ wuy si kon nag dañu wax ne sëñ Sidi Muxtaar mi itam waaw bis bi eh, da cee bokk te na ci moom wàllu gu mu war waaw gis nga jëwriñ hmm. gis nga kii. Mhm. maa ngi moom. Mhm. seq nañ lu bari. la su ma yorutoon kàddu soxna si wax. Mhm. bu ñëwee ma jox ko wax ji. dëgg la dañuy dañuy daje ci barab. dëgg la mu jox may wax wala ma jox ko samay wax. te li may wax lay wax. dëgg la bay la suñuy wax jenn wax la. waaye seere dafa am solo te soxna jaara mii lii kii doon wax ci moom noo ci xam lu baree baree bari kon soxna jaara te te des na ay détails des na ay détails de xam nga détails des du ma wax détails mooy soxna si dafa am liggéey muy liggéey yu baree bari xam nga ahlu café ñi ñi ko xamul nag waxuma ak ñoom waaye ñi xam ahlu kafe xam nañ ne ahlu café mooy daayira bi ëpp lu muy financé ci alal ci am at waaye nag amuñ nag kees waaye am nañ kees xam nga amuñ kees mooy amuñ kees gu ñuy denc waaye am nañ ñaari kees yu dul jeex laaj ma ñaari kees yu ahlu kafe yoon ñaari kees yu yan la sëñ Tuubaa murid yi